fase bi nga xam ne sharia daf ko aaye fase boobu nga fase ko jigéen dañ koy sip dégg nga mu di ci setti benn fase muy fase jigéen ci biir mbërëg kook si buñ ko dafa xaram ولون إلا تلاق الحيد اللي ما يفاس يجمبرك فمنعنا نكو حرام وارتجع تنغ فايلة كو جبرا تفرس وطلق نغ فاس إجتشاب لصوب إذ ينقطع جمون با مبرك مجي دق فاس جيجين فكمون يرمبرك دفع حرام soo ko defee attikatul islaam su amee daf lay sant nga forcé ko ci fayle soo ko faylee baax na soo bañee mu tëkku la ne la tëj soo bañee mu tëj la soo bañee mu tëkkoo la dóor soo bañee mu dóor soo bañee fayal nag mu fayalal ko boppam ne la fayal naar sa soxna te su boobaa dagan na nga joteeg moom ndax sa soxna ra jëleew yi ne moo fayal ko ndax buur fayal na ko attikat bi fayal na ko yéene attikat bi taxaw sa taxawaay yéene su ko defee loolu moom lay lislaam di atte foofu soo ko fase nag ci biir mbër rek ñu la jëli ko nga jëli ko du tee fase bi nga ko a fase fase la fase mu tàbbi la su mbër ma jeexee nag bu la neexee nga fasewaat ko waaye na nga xam ne fase ko ñaari fase loolu lay wane ay at ay lu ma ci namun ana talaaqa na fase alladi bi nga xam ne azana may na ndigal fii ci moom wala boog usina may na digal fii ci moom charan ci wala isma te dit bakkaar ala murtakibihi di war ko ko def woo moom maa taqadama mooy la jiit na tafsir woo teqale ko fi kalaami naazimi ci wax waykat bi déedéet wallaay ndax am na ñu teqale woon yoo xam ne bakkaar warut ci waaye mayewuñ ci ndigal ndax dañ ko sib kon ñetti fase mu am fasem sunna kooku maye nañ ci ndigal te boo ko defee amoo ci benn bakkaar bidaa am na ci yo xamne ne mayewuñ ci ndigal waye boko defé do ci am benn bakkar ak fassé ci mbërëg kooku ci façon bidaa la bok waye moom boko defé dang ci am bakkar te mayewuñ ci ndigal moom lay wone illa talaq al hayd lu may fase mbërëg fam naanang ko tere ay lu ma ci na lakin waye nak at talaq fassé fil hayd ci mbërëg haramun lu haram la fax kum atteel bi mani ci tere ko واحد زي ما يتدول من ارتكابي شي توقوغ موم لما في انجل لتنك من الخلاف جوتي لسنة نيال سنة المطهرة بواجلاب فتاتي بن برك دال دفوتك سنة تدفع حرامت وكما تحكمكم نيو اتي بمن ايقاء تلاقي تي حرام التب الفس زمن الحيد سي من برك وحكم اتي بمن ايقاء تلاقي ايضا بتي زمن النفاس سي من القسن lil illati ngir sabab al mutaqaddimu bi aji jiitu bayaanaha leeralam ni nga xamee dafa xaraam nit di fase jigéen ci jamono mbërëg naka noonu dafay xaraam mu fase ko ci jamono yim gësin mooy bu amee doom deret jooju di génn fekk daggagut dafay xaraam mu fase ko ndax ñaar ñëpp lu tax ñu araamal ko bokk na ci wutin ak sunna yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa waaye dafay guddal iddaam ndax balaa commencé iddawu foow mu set ci mbërëg moomu door a gisaat eh, ñetti mbërëg ci kanam fas bi door di door di jeex wa qawloo waxam warta ji ana nga fayde maanaawu maanaawu ma man irtakaba ku toggoog al muxaalafata wuteeg ndigal lii fase jigéen ci biir mbërëg wala biir gësin wa talaqa mu fase zawjatoo jabaram fi xaydin ci mbërëg aw nifaasin wala gësin talaaqan fase boo xam ne rek yéen fasem fayda la fax ku màttil ali ci moom biir tijaay zawjati mu fayda jabaram dina asmati delloo ko ca buum ga képp ku wuteeg ndigal daal di fase jabaram fekk mu ngi yërëm rek wala gësin dañ naan ko delloowatal soxna ci ci buum ga maanaam nga jëraat ko fen raaja anem fayal na ko bixtiyaar yi ci tànnam fal amru mbir mi waadihun lu leer la suñ ko waxee faylawaat ko mu fayle ko de kooku amul benn lënt lënt bu ci nekk mooy fayle lu ko jeex na waysam tanaanem bañ na min irjaa ci fayle ko jubira ñu forcé ale ci moom wala ji ki nga xam ne yamuru dana ko digal bi irtijaa ci fayle wayet buruhu mu di ko forcé ale ci fayle in abaanem bañ na alxaakimu mooy attikat bi su fekkee dafa bañ a fayle attikat bi da koy forcé pour mu fayda ji walolam taqum di la taxawewut almaraatu jigéen ji walolam taqum di la jugut almaraatu jigéen ji maanaam jigéen ji bu kalaamiwut sax atikër bi daf koy digal mu fayla ji liannahoo ndax fayla googu aqullaay ak yàlla la ko defee fay alamu dana xam azawju jëkkër ji an na talaqa wala boog fay alimu dana xamal azawju jëkkër ji na talaaq na fase alladi bi nga xam ne waqaa bi na minhu tukkee ci moom fi tilkal xaalati ci boobu la melokaan mooy jamono ba mu yore mbërëg wala gësin xayru jaaisin daganut attekat bi daf koy xamal ne ko fase bi nga fase ndaw si ci jamono bii mu yore mbërëg wala gësin daganut même bu si kalaame wut ak yàlla danga ko war a delloowaat ak yàlla nag ëpp naa yóbbu ndax bu fi buur nekkul yàlla mën na fajal boppam waaye amuruhu mu digal ko biir tijaay ci fayle ko attekat bi naan ko da nga jëriwaat sa soxna wayum saakee ak teekoo xataa toto xara bam laab su ma insha topp bu neexee tallaqaa mu fase ko qabla an yamassaha njëkk mu koy laal kay yekku na ngir mu nekk minal mu azuni di bokk ci fase buñ digle fii ci moom nan ko tee gannaaw boo ko fayalee ba mu laab su laabee nag bu neexee nga fase ko balaa ngay joteeg moom ndax boo bu laabee nga fase ko balaa ngay joteeg moom su boobaa fase nga ko fase bi bëgg mooy fase woo ko ci mbërëg ci laab nga ko fase te laab googu jote woo ci ak moom waaye li gën mooy su laabee nga xaar ba mu amaan mbërëg ba daggaat nga door koo fasewaat ndax amaana diggante bi xalaat yi soppeeku ci su fekkee àttekat bi daf ko forcé na ko fayleel sa soxna mu bañ mu lay wax ne fayin abaanem bañ na haddadahu mu tëkk ko bi sijni ci kaso wa sajanahu tam tëj ko bil fexli ci jëf bu bañee ne ko tëkku bu bañee mu tëj fayin abaanem bañ na haddadahu mu tëkk ko bi dar bi ci dóor wa darabahu mu dóor ko bi fexli ci jëf illam yarji anam delluwut gannaaw bu ko dóoree nag mu bañ moom lay wax ne fayin abaanam bañ na irtajaa mu fayle ko alxaakimu attikat bi bi an yaqula lahu te mooy mu wax ko ne ko qad irtajaatuha fayle naa ko laka ñeel la way juus dana dagan lahu ñeel ko wat uha mu lal ko bu bañee daal su ko defee bi daf koy fayle ne ko faylel naa la sa soxna ci te su boobaa mën naa seeg moom way daalam yéen وإذ لم ينوي دلي ينود يتجع فعلك عند الحكم يسجم ربني أتي عليك به تفعله بو أتكت بي أتينا فعلنا كمم بي ينود فعليت من ناجرك سوحنا تي لأن نية الحاكمين لح ينب أتكت بيو تقوم داي تخو مقام نيتي تخوى ينب ينب أتكت بي دوينا رمبلاسنا ينب وهذا لي معنى كلام الناظم mooy maanaam waxu waykat bu mu naan baadu gannaaw ga ne wattaleex fase intisha bu la soobee yéen xatin bu daggee boo ko faylee bu mbërëg mi daggee bu la neexee nga fase ko ay yu baaxu danañ daganal lakk ñeel la talaaqoa fase ndaw si baada inqitaaci damil xaydi gannaaw dagg ak deretu mbërëg wan nifaas ak gisin qabla wati njëkk laal wala yi foomu duñ dégg min am ri ci digle bi lu tijaay ci fayre xaxran ci force an na talaaq ne fase xeyru laazimin warut wax gi ñu wax ne boo fasee sa jigéen sa soxna fekk mu ngi yore deret mbërëg wala gësim dañ lay forcé nga fayre ko tekkiwut ne fase ba tàbbiwut akay ah, tàbbi na ba li fi nekk foofu moom fase ga laazimun aji tàbbi la ala kulli xaalin ci nu mu mën a demee wa kullun lépp nag mën a ci kaso wa dóor bi ak dóor wala irtijaa ak fayle ga yakun dafay nekk fii majlisin waaxidin ci benn jotaay benn jotaay ci la koy forcé mu fayle bu bañe ci la koy tëjee ci la koy dóoree waaye du nekk ay jotaay jotaay fen waqaanem tàbbina atalaaqu fase ba bàyyi na daaji facc kaana nekk na aasiman daaji bakkaar walaa yuj baru waaye ko forcé ala rajaati fayle su fekkee fase mi fase mu facc la ni ki mu fase ko ñetti yoon xam nga kooku mënatu koo jëlaat te ñetteel yoon bi ci biir mbërëg la ko fase fase bi tàbbi na am na bàkkaar waaye kenn du ko wax ne ko dama jëliwaat ko ndax buum nga jeex na bu fekkee nag fase mi fasem fay la mën na ko jëliwaat su boobaa xam nga buum nga jeexagut kon bu ko fasee ci biir mbërëg fase boobu tàbbi na waaye dañ koy forcer mu jëliwaat ko fayle ko وهذا أي محصل كلامي من منا جليتي وخمتي ما إلا تلاقى الحيض فامنع وارتجع جبرا وطلق إن تش إذ, إذ تشاء إذ ينقطع مو يجي بونك سينك نو عدة كونت أركان الطلاق بونك سي أربعة أربعة مينينت بسنجك الأهل مين jëkkër wo moom azawju moo di jëkkër aw man aw xaawo wala ki tàbbil fase ba ponk fase yi ñeent la bi ci njëkk mooy jëkkër wala ko xuutu jëkkër ñi ngi àttekat wala ko jëkkër gi sant mu jotlil ko fase bi wala yu demee noonu wala jabar joo xam ne jëkkër ji da ko loo bum ga wala mu tànn ko ñooñu ñëpp mën nañoo fas ñaareelu ponk ba mooy jëkkër ji jublu ci fase bu ci fase du baax ñetteelu ponk ba moy kay fase na fekk moom moom buum ga waaye ku moomut buum mënul fase kanaa attekat boo xam ne lislaam moo ko may mu tas ba wala kii moom buum bi sant la nga fase wala mu bàyyi la fase gi su boobaa mën ngaa fase ñeenteel bi mooy baat ba ngay fase léeg-léegi mën naa nekk baat bu leer léeg-léegi mu nekk baat boo xam ni leerut noonu mën naa nekk leetar yooyu danañ ci ñëw kon fase daal foo mu am ki fase dégg nga ak kañ fase te mooy jabar ji nga xam ne jëkkër ji moom moom buum ga ak jublu ci fase foo mu am ca ak baat ba ñuy fase bi mu ci njëkk jàngal na mooy jëkkër ji wala ka wuutu jëkkër moom la wane suma sharaa mu soobu yu bay nu di leeral arkaana talaaqi ponki fase fa qaala mu ne waxut da konte nañ arkaana kontel ponki fase arbaata muy ñeent al waaw waaw gi istinaafiya waaw sos la wa udda konte konte nañ bi rafin ci rafaa mubtada wul mubtada la wa udda moom boo ko defee wa udda moom fi'lu moom ni li majhul la bu ko defee nag wa addu mu nekk mubtada mhm. mubtada boo defee arkaan nekk mudaaf ilayhi bu baax wa add ngay def waaye nag kii nag wa udda كنت اثنين لرف وعد أركان التلاقي كوكو فعل مبني لمجهول النائب فعلا ولبين وعد أركان التلاقي لي مبنك فسي فاسي سو هناك مضاف عد هناك مبتدا لاف أركان وأربعة نك خبرو عد نك خبر عد waaw waaw arbaa li sakti noppi la dégg nga wam maanaa maanaa ga mooy ann adada arkaana taraqiw naka lii mu ponki fase yi allati yi nga xamante ne xawamu dana taxawee biyaa ci moom xaqiqatu dëgg-dëgg fase ak charin bi ka jug arbaa ñeent la fase daal pour mu tàbbi ci charin ñeent ponk yi foo mu daje اي توقع درا توقع درا تابل الطلاق فسبا من زوج تجكر او نائبي ولا قوت تجكر كحاكم لكم اتكت ووكيل اكي جكر جي باي بير ومثلهما كم نيوم نيار لا الزوجة جبر المملكة بن موم لو فسيغا او المخيرة ولا بن تان لو في عصمتها بنيكة جبو مغورغي sa jabar boo ko moom loo fase gi wala nga tànn loo ko kooku mën naa tànn fase ñaareel ba mooy wal xasdu ak jubluwaay falaa yalzamu du war atalaaqu fase min mukrahin ci kuñ forcé wa naxwihi ak ak ku mel ni kuñ forcé bu dee jubluwoo fase du nekk fase wal maxallu ak barab ba ta mooy woowu moom milkul ismati mooy moom buum ga qabla inqaa'i talaaqi njëkk tàbbil fase barab boobu mooy soxna si ngay fas yéene fekk moom bu baat ba maanaam yaay borom këram xaqiqatan moom ak dëgg-dëgg aw xukman wala moom ak atte ndik nga ne su ma ko takkee fase naa ko saa yoo ko takkee fase bi tabbi na wala sun ak baat bu leer aw kinaayatun wala dàkkantal bu feeñ aw wala bu baat bi nga koy fase mën naa nekk baat bu leer nañ wala mu nekk dàkkantal goo xam ne soo ko waxee xam ne ne lii moom fase la wala boo mu jëm talu fase jëm talu leneen loolu mooy dàkkantal bu nëbbu yooyu danañ ko jàng yi mooy ponki fase bi xas di xalil ismati nga jublu si nag fecc sëy ba moom baat boobu baat bi nga xam ne dàkkantal leeru ci wàllu fase balaa mu nekk fase foo nga jublu ci fase wa ma shurutu sixati waaye sartu yu koy wéral ay waxoon waa tàbbik fase ba sayxan daa ji wér laaziman daa war fase la surtout ñett la ñett la bis njëkk al islaam mooy doon julit wala am xel wala buluux ak jot baax loolu ci sartaay jëkkër ji la jëkkër balaa fase mu baax foo mu nekk julit am xel jot baax yooyu danañ ci ñëw kama yu fa moom comme niñ koy déggee min xawli ci waxam baax do gannaaw ko ne bil aqli wal buluux wal islaam loolu danañ ci ñëw xosiyaati dana dikk alkalaam waxale yaa ci loolu mu fassaran di luñ teqee incha allah noonu soom ne yàlla taala kawenam al ahlu mm, njaboot maanaam eh, mooy ponk bu njëkk ci fase wow moom azawju mooy jëkkër aw man aw xaaw wala ki tàbbil fase ba ay rukkunoo ponk ba ahlu bu njëkk ba ahlu mooy jëkkër wow moom man kaana mooy ko xam ne nekk na fii ci moom ahliyatun yelloo li iqaayi talaaxi ngi tàbbil fase bi ala zawjati ci jabar ji ki mën fase jabar ji daal kooku mooy ki yelloo fase wow moom azawju mooy jëkkër almaaliku gaaji moom li asmatiha ñeel buumu ndaw si xabla inqaay talaaq njëkk tàbbil fase la moom buum ga aw baada baadahu wala boog gannaaw ba mu tàbbile fase ba la moom buum ga bi taaliq ci aj ko su fekkee wax na ne wax na baatu fase ga te moomagut buum ga léeg-léeg mu mën a nekk mu ne su ma ko takkee fase naa ko kooku ba muy tàbbil baatu fase ba boobu moomu gut buum ko waaye dafa am fu mu ko aj moo tax ñaar yëpp fasal rek te ni ki waxam in tazawajtu bu ma takkee fulaanatan diw fa yi moom taarixun kuñ fasala fa in tazawajaha bu ko takkee bil fi'li ci jëf fa in naa naka naw soos tu tarlaqu dañ koy fase ci góor googu mm, bi mu jaradil aqdi ci moom su ne su ma takkee diw fase naa ko bu koy takk rek yoon ne ko fase ko wa yaxsul dana am daalika loolu kasiran lu bëri mel ne amati ci nit ñi nee na loolu nit ñi lu bëri dañ koy def waaye ku wax ne su ma takkee diw fase naa ko boo ko takkee rek fase nga ko te xaw lim ni ki seen wax fii ci ci tëgginu ngëñëg birru ne xaruma xaraam na baada raqali gannaaw mu ko takkee laa ukalimu du ma wax ak zaydan diw zaydan zaydu wala duxul du ma dugg daarahu këram du ma wax ak zaydu du ma dugg këram bu ma fa duggee ndaw si xaraam na ma su ma ko takkee boo duggee boo takkee ndaw so dugg kër diw wala nga wax ak moom rek hmm, wala daal boo li nga wax bu dul dëgg boo wax ak wala nga dugg kër googu kër Zeydu booy takk ndaw si rek fase bi ñuy wax fi siixatil xent si si tëgginu ka xawli ni ko xam alayhi alxaraamu na ko alayhi ci moom góor gi baal ràq di gannaaw moom takkee lay dir ban dana dóor Zeydan Zeydu bu dana dóor Zeydu bu ko dóor bu takkee ndaw si xaraam na ko bis bu dóor Zeydu bu ko dóorut buy takk ndaw soo rek sëy ba tas na hommage ba dalik ak numéro yooyu kon ngëñ gi moo xam ngëñ ak biru la te duma def wala ngëñ ak xentu la teeñu te danaa def ndax boo nee duma def moom yaa ngi ci dëgg fekk ba ngay defee waaye boo nee def yaa ngi ci nar fekk ba ngay mm, mm, defee su ko defee moo tax juddee bu njëkk ba ngëñ ak bir boo mm, ndax dafa dëgg la di gën bu ñaareel ba ñu tuddee ko nga ñëg teeñu ndax waa daf mel ne mu ngi ci nar fekk defut fen kan ne wax naab zeydu fil awwali ci bu njëkk bi aw da mu dugg daarahu këram baana naq da gannaaw mu takkee ala imraatin ci ndaw saw lazim moo war na ko attaraaku fase su fekkee daf ne bu takkee ndaw si duggee kër zeydu fas bi tàbbi nag muy teeñu rek buy dugg kër rek fas bi tàbbi na wéyn tarak nem bàyyi na darba Zeydin dóor Zeydu fi saadi si wu ñaareel bi moo xam moo ko tey aw mukuraan wala dañ ko forcé lazim moo doxee war attaraaku fase ay dem ba tey bu takkee ndaw si mm, dana dóor Zeydu bu ko dóorut saa yi takkee ndaw si bu dóorut Zeydu fas bi dafay tàbbi moo tax aj fase baaxut ndaw si takkoo googu waaye boo ajee fase bi ci dara boo koy takk rek mm, fase bi day tàbbi wa mislu zawji comme jëkkër la moo xew aji tàbbil fase bi niyaabati ci wuutu anu ci moom kal xaakimi ki àttekat wala wakiil ak ki ji bàyyee fase bi laakin waaye nag yu saratu dañ sàttaal fi luzumi talaaqi ci wéyeg fase إذا أوقعوا بكتا بليو الزوج جكديو الإسلام دون جلد وتكليف أبدون مكلف ما أمقل جد باخ دون غيري ورسكو الكوكو إلا الحاكم لما أعتقد فيشترط لأن ساتال في سموم ذلك ذلك لول كما هو معلوم كم ننكو قمي دينغو maanaam jëkkër ak àttekat dañuy sartaal ci ñoom ñu doon jullit pour ñu mën a fase dañuy sartaal ci ñoom ñu am xel du nekk dof jot baax du nekk xale ñu seen fase du baax wala masruutu la ñuy sartaal fii xëyri ci keneen ku jëkkër du àttekat atamisu mooy xàmmee faqat dong yow moom bu dee doo jëkkër doo àttekat boo xàmmee rek boo fase fase bi tabbi la wa talaaqul fuduli fasam fudul وهم من أوقاموا كتب التلاقف التلاقف عن غيره تكنن بغير إذن تلدون ديغل منو تمام لازم أجي ورلا نو رك فك جاو نكو فاسن لا آه، فاسمون من ناوي لكن وينك بعد إجازة جنا من مالك العصمة تكو من بونكو intibaari ibtidaari iddati ngir xalam gi ñu xalam commencé wa commencement wa idda ga minha ci moom ay ay al ijazatu ci wéyal ga minha ca wéyal fase ga min waxtu iqaa yi nekku ci waxtu bañ ko tàbbalee minal fudur yi ci ki nga xam ni dafay caaxaan rek su nit ñëwee ci soxnaay diw ko fase nañ la dañuy xool suñ laajee jëkkër ji ne ko sa jabar jëkkër ji ne waaw wéyal naa ko fas bi tàbbi na waaye keroog ba jëkkër ji wéyalee fas bi lay commencé adda nekkul keroog bañ ko waxee fas nañ la mu lay wax ne bila aqli jëkkër ji fa foo mu am xel wal buluuxi foo mu jot baax wal islaami foo mu doon julit naka noonu attekat bi loo ciy déggee dof wala xale wala xéevéer ku ci nekk jëkkër bu fasee fase bi du baax ndax ñoom seen fase wérut moo tax buñ fasee seen jabarit teewut koo nekk jabar su fekkee dof bi nag léeg-léegi mu dof léeg-léegi mu xàmme jamono yi muy nekk nit xàmmee dara darul ko yooyu moom ci ci fase li gën a siiw mooy fase bi dana baax wal jim waral na nga waral fase bi sukrin ci man di bi aji tat xaraamin bi aji xaraam ku màndee ci dagan bu fasee jabaram fase ba tàbbiwul waaye ku màndee ci lu niki ni ki sàngara te moo ko tey forcé wuñ ko jaawalewut kooku su fasee jabaram fase bi dafay tàbbi di la màndi gi màndi gu tat la nga xam ne xàmmewut saa yu fasee jabaram fase bi dafay tabi teewul am nañu ne fasem du tàbbi moom ki nga xam ne dafa màndi màndi moo xam ni xàmmewut ndax mook dof ñoo bokk àtte waaye li gën a dëgg daal mooy fasem dafay tàbbi ndem dafa màndee lu xaraam dégg naka noonu it ci bu gore lay jaamam dafay gaal jaam bi gore bu yàqee àllu jàmbur dafay fay bu tuuree bakkan ñu faye ko ci moom ci jamono màndiga su xastee ñu caw ko bu sàccee ñu dagg loxo ba yooyu yëpp daf koy war waaye jamono bi mu màndee bi mu su nangoo ne def na dara niki mu ne maa sàccoon nangam duñ ko nangu loolu duñ ko ko nangul dégg nga su demee ba xeri màndi ma dañ su ko wéy dee naan wax dëgg maanaam rey naa bakkan wala sàcc naa nangam loolu duñ ko nangu jamono bi màndi bu takkee sëy du baax bu jaayee wala mu luyee du baax mboolem lu mu fasanteeg nit daal si jamono bu màndi du baax dañuy xaar ba mu wuri su ko uh, wéyalee rek ñu xam ne kii nangu na ko waaye su weddee ne takku moon sëy bi wala jaayu mu ko wala luyee mu ko woon dañ ko koy nangul kon ki màndu ci màndi yim fas ci jamono màndi wala lum nangu saxal ko ci jamono màndi duñ ko nangu waaye lam tooñ wala lam goreel wala ay faseem wala yi nga xam ne gëtin def cee war moom dañ ko koy jàppee loolu lay wax ne bil aqli wal buluux wal islaam ay xaadi lii shurutun charte la fi luzumi talaaqi ci war ak fase min mawqi ci tàbbi waayam fi ne aw xamu nem fa ba مجنون دف وصبي ولا قليل وكافر ولا هبر وكان منك كل كب من من ذكر تنيني تزوجا دي جكر بن فسي فلا يكون دونك التلاق فسي لازم دي جوار ولا يؤثر دي جكر خلالا بان يق يق في العصمة تبومك ضف بفسي ولا خلي بفسي ولا هبر بفسي تصب بومك لعدم صحة وقوعي غير ñàkk wér ak tàbbik fase minum ci ñoom fa in kaanam nekk na almañunu dof gi yafiqu di xiqi axyaanan léegi-léegi waaw xaamu tàbbil ak talaaqa fate xaala ifaqati jamono ba muy xiqee fa innoo nag moom yalzamu dana ko waral mashhuri ci lu gën a siw dof bi bu fekkee léeg-léegi mu xàmme jamono bu muy xàmmee su dee ci ci la fase fase boobu dafay war walzim bi sukrin taafihin xaraam yaani lu mas na mu anna man shariba ne ku naan muskiran sàngara maa i an bu aji ka xam ne ni ki sàngara muskiran aji mandil maa i an bu aji ka xam ne ni sàngara hamidan te fekk moo ko tey muxtaaran ci coobareem la moo ko tànn fa sakira mu naan mandi minu ci moom suma ma talaqa mu fase zawjatuhu jabaram fi tilka xaalati ci boobu la melokaan lazimu da koy war fase wala yuxzaru duñ ko ngàntal bi adami tamyiz ci ñàkk xàmme duñ na ko ba ngay fase xàmme woon ndax sàngara yàlla daf ko aaye moom moo tey naan ko fase bi dafay tabbi bu dee nag tayit ko kenn du ko jàppee fase boobu bu dee la mande yi lu dagal la loolu lislaam ay nag mu jëfandikoo ko kon duñ ko jàppee fase boobu ndax àndut ak xelam walaw kaana di nekk na sukru mandem taa fi xande aji tat alal maza bi ci ngir mi waxi la am ne laa yelzamu fase warut ko li àndoon ndax moom mi màndi di leen la màndee wala xaalatu te mbir mi xaaji yi comme nii la maanaam dafa màndi bi manzilatil majnuun mu ngi yore wàccuwaay dof oo wax jooju daay fun wax ju la li gën a wér lu xaram la màndee rek fas bi dafay tabb wa sukkuru màndi attaafi gaa ji tat allazi mooy ki nga xam ne màndi gi nga xam ne laa yu may su xàmmewul bayna samaay diggante asamaan wala ardi ak diggante suuf wala yu baali faale wut meneen waxoon ci tàbbi fii biiriñ ci aw naarin war safara ko mooy màndi gu tat bu mel noonu bu fase fas bi dafay wéy ndem la màndee dafa xaram wa yalzamu comme nu mu koy ware talaaqu fate yalzamu da koy war alin ko goreel wal jinaayaat ak tooñaange yi ala nu foos ci bakkan bakkan bu mu rek ñu ray ko wala amwaal ak alal yi alal jum yàq dana ko fay wala xuduud ak géttin yi ka xaddil xas fi ni ka géttinu xaste wa sariqati ak sàcc kum xas danañ ko caw lum sàcc danañ dagg lox ba wala yelzumu du ko war na iqraaru nangu bi cheyin ci dara kaana nekkoon na jaaxidan daa ji weddi la wuñeel ko xablu sukri njëkk muy màndi njëkk muy màndi min xalli nafsin lu mel ni rey bakkanu aw maalin wala jël alal su fekkee da ko weddi woon xaar ba mu màndi mu ne moo ko rey wala alal moo ko jël duñ ko nangul wala yalzamu du ko war ma aqadahu lam fas min nikaayin ci sëy lépp lu mu fas rek baaxut xam sëy la aw bayin wala njaay aw ijaaratin wala yooloo mooy luyee nit dara aw wala di liggéeyloo nit aw xeeri zaalik wala lu min saa min saa iri nuquudi ci mboolem pas-pas yi mu fas duñ ko nangu falaa yu waaxasu duñ ko jàppee bi ci moom baax da tamyiz gannaaw mu xàmme wala yoq daa duñ àtte xale ci moom in jaxada nem weddina su demee ba xàmme ne ah kat jaayee ma ko woon dañ naan kon lu def pas-pas bu def rek baaxut duñ ko àttel ko defoon ba ngay màndi déedéet mu yaada maanaa ci bi la maanaa xaal لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود لا يلزم دور السكران أجمان إقرار ننغ درا عقود ولا مفصدر ولا بميمان بل فيك ما جنى لم تون لول درين كو جابي يتقن غريل درين كو جابي طلاق فسي وحدود أجتن درين كو جابي ومن تلقى كفاز زوجته وجبرم fi xaalatil xadabi si jamono mer fala yuxzaru duñ ko nangul ngànt su fekkee dafa mer moo tax mu fase jabaram mer ñaari façon la bu dee dafa mer ba nga xam ne xàmmeetu dara kooku moog dafa yem bu fase jabaram fase ba tàbbiwut waaye kun day nekk nag talaaqan fase laaziman ba aji war su fekkee mer mi xàmme na mu la war a illaa isa xaabalu mooy mu fàddu an ixsaas yi wala si yëg-yëgam bu dee dafa mer ba yëgatut dara wa illaa nem yëgatut fa kal majnuuni comme dof la firi ku mi ci atte kama nabaha comme nu mu yee ala zalik ci loolu cheikhu saawi fi bulxatu saarik ci téere mu ñu wax bulxatu saarik mu ne mer bu fekkee borom dem na ba xàmmeetut fi muy teg tànkam mm, yëgatut dara ndax am nañu mën a mën a meree noonu kooku fase du tàbbi loolu cheikh saawi wax na ko si bulxatu saarik bi xawli ci waxam يلزم دنا وطلاق الغدبان فسب كمر ولو اشتد دل لفتت غدبو مرم خلاف نوتيك لبعض من يلنين ومن ينا ديرت فسب كمر مم تبور كون فسب كمر وتيلا وينك جيجن وير موين لم دفع مهر مفاسب فسب تبنا ودعوى أنه ووتنا موم من قبيل الإكرام بوكسي بنتب فرس باترو نيلا تفهمني وحنا ki bu fasee moo kuñ forcé mu fase ñoo yem ndax mer maa ko tax wax bu feexoon du ko wax <laughs> waaye la mu ne li wér daal mooy ku mer ne mu ngi ànd ak sagom bu fasee tabbi na te war na wutee bi comme ni nga ko gisee nii wa kullu haada lii lépp maanaam yaxib fekk su laay soxlu nga xam ne yëgut werante gi yëpp nag mooy su fekkee xel ma demut maa bu fekkee xel mi dem na yëgatul dara yëgatul laay sunu yëgut bi maa sadara ci la jugee na minu ci moom fay noonu ak waa jooju kal mañ noonu comme dof la fasem tàbbut bu dee xel mi dafa dem ba yëgatul li xew la muy def sax xamu ko kooku moom bu kooku moom bu fasee ci jamono boobu muy mer fase ba tàbbut waaye bu dul loolu nag mer nii rek fase ah, am na ñu ne tàbbi na am na ñu ne tàbbiwul li gën a wér mooy fase boobu tàbbi na ndem xàmmee na. إن أريد الإسلام ما استطعت ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته